maanaam convocation yi bari na nag. Ah. Eh, Cheikh Omar Diagne woolu nañ ko. Mhm. Karim woolu nañ ko. Kelédoor ñi ngi yëg ni woolu nañ ko. Mhm. te xam naa dàmbooj mën na am moo ci topp ndax démb mhm. dëggal na ay propos nee na. li ñuy wax bañ téye leen man loolu laa wax ñoo ko bokk waxandoo. dafa mel nag Sénégal dañuy bañ maanaam appel à. Euh, xawma lan waaw xawma trouble à l'ordre public la ñuy bañ. maanaam imaam tey bu toogoon daal ni waaw sénégalais dañ jóg jaay seen bakkan maanaam ak Sall bu ñu ko bàyyee noonu. <laughs> ñu ni imaam dafa woote. ndax jar na ko. Mhm. ñu leen di woo ak ndax gaa ñi ñoo wax lu ëpp. waaw man jàpp naa ne waxaguñ la ëpp mais dañu nekk ci nguur goo xam ne dafa tiit booleeg di wane dooleem. Hmm. waaw man loolu ci li ma soof la bokk mooy nguur gi dafa toll ci wane ne man dama am doole. Hmm. damaa am doole di tëj di jàpp ci léeg-léeg lu ñàkk fayda. Hmm. sooy bu ku dem léegi bay topp ay page yi Facebook. di xool ay publication di tëj nit ñi. <laughs> di jàpp ay nit yuy reetaan ngay tëj. di jàpp ay nit yi partagé ay journal yu jalgati xibaar. Ah. nga jàpp tëj. te dañu woon audio de preuve ci wàllu dossier. Ah, mënta loolu mooy da nga tëj kaso bi di tëj tëj tëj ba mu fees mais gisuma lu jaroon ñii ñu arrêté leen. Mhm. lu dul nag. dañoo def discours bu tàng buy wane ni ñun danañ taxaw. Mhm. wàcc ci mbedd mi mais bàyyi leen bañ taxaw ba wàcc. Mhm. c'est-à-dire nit bu annoncé ne dinaa wàcc bàyyi ko moom bu wàccee nga jàpp ko. d'accord mais wàccagul. dafa ah. annoncé ne dinañ wàcc. ah mais ki annoncé ne imaam ni dañuy wàcc nag. waaw kooku mi ngi ci pexe wàcc de. waaw mi ngi ci pexe wàcc mais tant que de mais sooy man su ma toogee fii ne suba dinaa sàcc te sàcc gu ma waruñu maa jàpp. waaw dañuy xam ne imaam bi am na intention sàcc. intention sàcc du délit dëgg yàlla du délit <laughs> intention sàcc te sàcc goo du délit <laughs> ñi ma gis ñu koy wax. puissance boobu amuñu ko. puissance bu yëngal réew mi. Ah, dégg naa la maanaam Karim amul doole. yëngal oh. état yëngal réew wax nga dëgg de. Karim Cheikh Oumar Diagne euh, Clédor seen ay combattant lañu. Mhm. mais nag amaguñu public boo xam ne buñ ne jóg leen ñëpp jóg. loolu li ci Sonko am a gës néew sax ñoom amuñu ko. mais xëy na influence bi lañuy bañ. Oh. maanaam influence yi jeunes yi influence boobu nag. Hmm. maa ngi gëm ne ñoom ñoo ko nar a créer. Hmm. maanaam état bi jàpp bi muy jàpp di tëj di jàpp di tëj di jàpp di ci tëj. Hmm. ci lay ubbee combat yu baree bare yoo xam ne. déjà tey. lépp lu bokkoon ci mouvement activiste yi nga activer leen am na keneen pour jàpp dégg naa ku nopp euh, impôt et domaine. Mhm. waa impôt ña ngay menacé nee nañu ñoom dinañ wàcc jigéen bokk ci combat bi bu demee ba syndicaliste yi impo et domaine di administration ne ñoom danañ wàcc jigéen bi bu ñu bàyyiwul waa jooju. Mhm. jàngalekat yi moo door de gis nga tey jii tàmbali nañ débrayage. Mhm. ne nañ école bi foog ñu yëngal ko foog ñu bàyyi jàngalekat yi nu téye. yi bu ñu defee noonu ñeneen def noonu cest à état bi muy mujj kéréel boppam ay combat yu bare bare yoo xam ne li daloon Ablaye Wade 2012. Mhm. jàngalekat yeeg médecin yeeg sëriñ saak imam yaag ñëpp ay sëmbaxandoo dal ci sa kaw yow yaay mujj kéréel adversaire bu lay daaneel ci suuf. moo tax man jàpp naa ne nii ñu xiirtaloo ci ñii di leen tëj di leen jàpp amul benn chance. amul njëriñ daal nañu bàyyi nit ñi wax seen xalaat. Mhm. Sidi Lamine moo daan wax ni. Mhm. bàyyi leen nit ñi wax. Mhm. cin li mooy bax. waaw cin buy bax day ànd ak coow. Mhm. soo bañee mu tuuru nag da ngay fël gi tuuti mu ubbeeku. Mhm. loolu mooy foog nga may nit ñi ab ruq bu ñuy waxee seeni soxla. yow tee nga RTS nag kenn du fa wax. waaw yenn télé yi fexe nga ba téye leen ne kenn du fa jàllale benn kàddu bu neexul nguur gi. Mhm. réseaux sociaux yi la gars yi am di fa jàllale seen i kaddu. mais yaa xayti bàyyi leen ñu coow fa bu ñu paree ñu dellu seen i kër. vraiment te man ñi ma gis ñu fiy coow da ngay gis ñu am meeting coow soo soo soo ba mu jeex. Mhm. ñu dem ñibbi mais loolu ban problème moo fi am. vraiment te ku mel ni Cheikh Omar Diagne mhm. man gëm naa ne état bu àndoon ak dal tuuti. réew mi jàmm rek lay am. d'accord mais acharnement bi daal ëpp na te ñooñu tamit ñu ngi leen di masawu bu baax. macha allah muy Cheikh Omar muy Abdou Karim muy Clédor parce que ñoom nekk gi ne ci naaj wi ñun moo ñu ba ci kër gi tey. waaw ah, dëgg la waaw ah, ñoom lii ñuy xeex du seen doom du seeni i jur du seeni bopp mais askan wi la ñuy xeexal. d'accord yal na leen yàlla sàmm te jàppale leen.